salaamaaleykum mbokk internautes yi dal leen ak jàmm ci seen fii di divers tribunal de flagrants délits bu ndakaaru ni ki démb la daal di condamné feccukatu Wally Seck yi mu daat leen daan benn atu kasu ci biir loole benn weer lañ ciy tëdd mu Mouhamed Samb ñu gën ko xam ci Ahmed Thiou ak ba Badiane yoon jàpp na ni ay coupable lañ gannaaw bañ doon fóonante ci ab scène concert bi nga xam ne Wally Seck mu ngi ko doon amal boobu boobule fóonante nag tax na ba ñaari fecckat yooyu le dinañu passé tabaski bi ci biir kaso bi liñ leen attentat à la pudeur ak acte contre nature di fàttali ni ñu ngi leen su woon sous mandat de dépôt vendredi 25 juin bi ñu génn ñu daal leen tegoon loxo gannaaw ba ONG Jamra bi nga xam ne Mame Mactar Guèye moo ko jiite ak mouvement nitu dëgg bi nga xam ne Abdou Karim Guèye alias Karim Xurum Xaax moo ko jiite daal le woon porté boobu boobule dogal nag Jamra mu ngi koy rafetlu lool mu jàpp ni ab coup d'arrêt judiciaire bi nga xam ne day delloo si suñuy valeur la dañuy desandi ca tribunal des flagrants délits bu ndakaaru ñaari góor jigéen yi nga xam ni dañ doon sëy la ñu doon jugé itam ni ki démb ñu ngi leen tegoon loxo ñett fan ci weeru juin bi ñu génn fële ca plage bu ñu duppee don de la mer ca noonee la gendarme bi di wuyoo ci turu Malick Guèye nekkoon chef opération bi ak ñett ci ay collègue am daal leen di bett foofu ñuy def naka sudul noonu ci boobu boobule plage ñaari góor jigéen yooyu nag ñuy fàttali ni ñu ngi bàyyeeko Dakar kenn ki restaurateur la dëkk ca Fass Delorme keneen ki ab commerçant la ci plage ba nag way takk der yi fekk nañ fa ay préservatifs yu bëri yoo xam ne utiliser nañ leen ba pare ak ñaari bouteilles yoo xam ne ab liquide lubrifiant moo fa nekk ab benn carton boo xam ne ca la ñu tëddoon ak ay paquet mouchoir yu bëri ki démb lañ doon jàkkaarloo procureur ñu daal leen di daan ñaari atu kaso ca biir juróom benn weer la ñuy tëdd ñu fas yéene leen édifier ñett ci weeru juillet bi di ñëw ñu desandi ci xibaaru faits divers yi ñu wax lu ñeel promotion LGBT ganaaw ba Wally Seck déposé ab plainte ca brigade de recherche gendarmerie ku tuddu Khali Sall nekk jarbaat ci maire bu Ndandaan nekk ca Podor moom la ñu njëkk a ba ñu ko déglu mujj nañ ko libéré sur convocation moom nag assume na lépp li nga xam ni moom la bindoon mu doon accusé waykat bi di Wally Seck dafa jege LGBT yi di fàttali nag Wally Seck dafa adressé ay citation communication directe lu ëpp fukk ci ay site internet ak i doomi aadama yi nga xam ne dañ ko doon attaqué ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ne dañoo bokk ci daayira Muxtahina bu ci Tiwaawan ñoo yónnee ab note prêcheur bii di Ibrahima Badiane ñu gën ko xam ci turu Iran Ndao gannaaw ba ñu amalee ab concertation ñu jàpp ni nag dañ koy génnee ci seen daayira ndax ñu jàpp ni kàddu yi nga xam ne Iran Ndao wax na ko yennuwul maanaa benn yoon boobu boobule décision nag ñu ngi ko jël gannaaw ba Serigne Moustapha si Al Amin ci ay kàddu jàpp ni li Iran Ndao wax tegginewul benn yoon te amul respect di sens religieux la Iran Ndaw waxoon ni moom bokkul ca Tiwaawan kàddu yi la Iran Ndaw yëkkati woon moomu ñu ma du ma seen nen ay kàddu yi nga xam ne nag nakari woon na lool waa Tiwaawan ñenn ñi jàpp ni sax dafa tooñ famille El Hadj Malick Sy